congrès bi également waxtaan na nañ ñun la ñu def ba pathologie yooyu wàññeeku parce que tey loolu ci biir kër yi lay xewee ci usines yi lay xewee nan la ñuy def ba am jumtukaay yi wala di liggéey loo xamante ne nii lakk-lakk dina wàññeeku wala même bu dee am également bu amee dinañ am nuñ ko toppatoowee waaw bi ñuy commencé li ñu njëkk a def bés bu njëkk bi mooy alarba bi dañoo dajale ñëpp ñi nga xamante ni dañu faj ci Sénégal infirmier yi ak médecin bi ñu fekkante université ci centre de sunu naataango yi nekk ci Sénégal ñi nga xamante ni professeur kan moo leen jiite moo jiite centre boobu ak ñi nga xamante ni dañuy jógee ci bitim réew ñëw fekk suñu jàngal infirmier yi lan mooy faju brûlure les soins fondamentaux de la brûlure nu ñu defee pansement yi ak nan la ñu yokkee seen xam-xam ci loolu docteur yi fa daje également jàng nañu. noo xamante ni protocole yi pour ñëpp ñu bokk ay protocole fu ñu nekk ci Sénégal faje brûlure moo xamante ne nii lu am solo la am ay protocole yoo xamante ni dafa yamamaay pour que booy faj nit ki nit ki euh, protocole yooyu mën la dimbali bu baax a baax tey ci journée bu mujj bi démb dañoo yend ci pajum brûlure ni ñu koy defee ci congrès bi ay conférence yoo xamante ni nii ñi nga xamante ni dañoo jóge ci àdduna bi ñëw daje ñu waxtaan ci brûlure ni koy faje buñ koy nuñ koy fajee bu amee ci kër gi nan lañ koy jëlee ji ambulance bi dugal ko ci hôpital bi bu duggee ci hôpital bi nan lañ koy bu demee ba génn nan lañ koy defee tey ñu waxtaan ci ñi nga xamante ni ñëpp ñoo xalaatul woon ni tey dañoo fajum brûlé waruñ ci bokk mooy sikkaat yi mooy ñi nga xamante ne ñu affaire lekk-lekk bi nga xamante ni nii dañuy ci affaire lu ñuy wax massage kinésithérapie ñooñu tamit comme am nañ ci wàllu tey waxtaan nañu pour ñooñu seen liggéey ci brûlure nan lañ koy defee ñu jeexale nag ci mbirum lakk-lakk bi nan la ñu def ba mu wàññeeku affaire prévention yi ñi nga xamante ni dañu liggéey ci pétrole ñëw nañ ko wax ñi nga xamante ni seen liggéey dafa màcc ci sécurité ñëw joxe seen xalaat ci nan la ñu def ba brûlure yi mën a wàññeeku donc vraiment loolu mooy thème yi nga xamante ni ñun yitteeloo nañ trop mooy jàngale bi pour que nit ñi seen xam-xam yokk ci brûlure yokk ci ni ñuy faje brûlure également ni nga xamante nan la ñuy def ba moytu lakk-lakk yi ci biir kër yi ak ci bërëbu liggéeykaay liñ ci mënta retenir mooy ministre bi li nga xamante ni tey yitteel na ko parce que tey xam na ni luy brûlure nu mu mel ak yooyu moo tax congrès bi def ko yitteel ñëw na démb wane ni moom moo dafa engagé wu ci paj boobu wane na lan la gouvernement bi nar a def pour toppatoo loolu hôpital yi nga xamante ni ñi ngi leen di tabax ak hôpital yi nga xamante ni tabax nañ leen di pare lan lañ ciy yokk pour ku nga xamante ni bu lakk ñëwee ñu xam niñ lay toppatoowee donc wane na engagement bi nga xamante ni tey Sénégal mi ngi liggéey mi ngi pare pour lii bu xewee dinañu mën a toppatoo kooku ba bakkan du ci rot lakk-lakk day changer dundinu doomu aadama te accident la donc accident également bu amee ñi ñuy wax soutien psychologique daf ci am solo moo tax ñooñu tamit ci pat bi la ñu bokk bu amee rek dañ ciy bokk jàppale ñu bu ñuy def faj malaat bi accompagner bu malaat bu wéree mën a delluwaat ci këram wala delluwaat ci liggéeyam ci jàmm parce que psychologiquement dañ koy accompagner du début jusqu'à la liñ ci génne moom mooy il faut que ñun ñi nga xamante ne dañuy faj di continuer di di continuer di góor góorgóorlu di ci njàng mi xam faj bi nan lañ koy defee donc di def ay formation continue loolu mooy li nga xamante ni donc il faut que li ñuy def premier jour bi ñu def ba nga xamante ni yooyu dañ koy continuer di def ci dëkk bi nit ñi di gën a jàng di yokk seen xam-xam di natt seen bopp ci fajum brûlure li ci topp moom mooy hôpitaux yi ak ni ñuy liggéeyee ñu fexe ba nga xamante ni nii dinañu am ay centre dinañu am ay jumtukaay yoo xamante ni nii pour faj brûlure ku lakk-lakk-lakk bu garaaw di nga am fii ci dëkk bi dinañ la faj ba bu lakk-lakk bi grawee doo jéggi naa yi pour dem feneen fii lañ lay faje ci dëkk bi bu ci mujj mooy waxtaan ci prévention bi parce que baax na walaay nga am ay centre pour faj brûlure mais li gënoon moom mooy ñu def ba nga xamante ni nii gaz yi explosé ci biir kër yi wàññeeku ñu def ba nga xamante ni nii lal yi lakk wala